Eh, ma jàngi am ay moyen yu baax lu war ma décorer ji jël sama place. eh ah kii laa foon wala ji la ji la wala bii la. sama chèque war te dem retiré bii teg ma di jël kaañ bi di vimer. eh ah kii laa foon bi wala ji la ji wala bii am visa France war a dem tukki. ji yoxo suma def Nespagne ma fi. Eh, kii laa fóon bi la wala ci la ci la wala fii la am sama ger mu war ma seet si ma nekk di sangu fii xaay show bi ah kii laa fóon bi la wala ci la ci la wala fii la bi la wala ci la ci la wala fii la les twins DJ dans la place ci la wala fii la bi la wala ci la ci doon kenn xamu ko bi la wala ci la ci la wala fii la yow bi la wala ci la ci la wala fii la bi la wala ci la jumeau animateur radio, premier jumeau animateur télé, premier jumeau DJ dans les box, premier jumeau à faire pila wala jila jila wala pila jila wala pila pila wala jila pila wala jila jila wala pila jila wala pila pila wala jila nobody no tunnel bulo nee Yeah, bonsoir euh, mesdames et messieurs, bonsoir amis téléspectateurs, euh, bienvenue dans Hello Ado. Ils sont là les jumeaux, l'un se nomme Pi, l'autre se Twins, DJ, Turtle Sinon tu vas bien? on essaie de Tu as la forme? Ouais, On est mercredi aujourd'hui, c'est le mois d'octobre. Ouais. Je vois un trophée là, qu'est-ce qui se passe monsieur G? Voilà, donc euh, today on a amené ça. Ça c'est quoi? 24e édition tournoi presse football. Donc voilà, je tenais à féliciter euh, toute l'équipe euh, du groupe euh, Média, TFM, GFM, mhm. les joueurs plus particulièrement bien sûr. Puis il fait partie des joueurs, Guy, voilà, et nos caméramans. Fall Voilà, donc tout le staff <laughs> aussi à Birando. Donc euh, c'est ça. ok alors amis téléspectateurs on vous l'avait promis le vendredi oui le vendredi vers une heure du matin on avait émission Hello Ado on vous avait dit que la TFM est qualifiée en finale un tournoi presse qui opposait 14 presses dont il y avait des radios bien sûr des télés de la place la 2STV la RDV la RTS il y avait beaucoup de télévision mais TFM moom moo demoon finale en compagnie bien sûr de Trade FM euh, en finale alors on a gagné un but à zéro but marqué par euh, notre euh, Mané. ami il s'appelle Mané donc il est en train de regarder latéral gauche moom moo dugal suñu but bi donc Mané su fekkee yaa ngi seetaan gaawal nga ñëw ba la fin émission ñu jekkali bien sûr victoire bi Biran Ndour Bouba Ndour encore une fois mention spéciale aux deux Biran de Biram, bien sûr, à l'écoute, euh, en train de regarder aussi les PNJ. Félicitations à vous, les gars. Malik, félicitations. Félicitations aux gardiens, à toutes les jeunes filles, aux jeunes garçons qui se sont déplacés, euh, qui sont venus au, au stade, d'Emba Diop, bien sûr, pour supporter leur DJ, leur animateur, leur idole, bien sûr, la TFM, la GFM. Chapeau à vous. Ce trophée, c'est pour vous. Raison pour laquelle, en début d'émission, on l'a amené, n'est-ce pas, G Voilà, ça Donc, euh, ils Hollywood Hollywood. alors ku lekkul woon chewing-gum vendredi tey da nga koy lekk ji dajil ba pare dajil. dajil parce que désormais émission n PNG balaa muy commencer su fekkee yaa ngi seetaan demal si boutique bi nga jënd chewing-gum wi oui chewing euh, accompagne Hollywood ah, accompagne PNG dans Hello Ado. gis nga pii nu mu def dama bëgg ku nekk ku nekk waaw ba léegi. Uh-huh. ku nekk balaa ngay commencé émission bi nga dajji ko. nga def comme Pi nga def comme Ji. def Olivet waaw gisoo da koy dajji. yeah c'est bon. c'est comme ça. jantal boo c'est comme ça. gars def leen man. Hollywood. Voilà, sur ce, bien sûr, on va faire plaisir à toute l'équipe, le Dream Team, bien mm-hmm. sûr. Ils adorent un morceau, un son qui cartonne, aimé par les jeunes, branchés aussi. Et mm-hmm. de passage, je en profiter à notre manière par prolongation pour souhaiter à nouveau joyeux anniversaire okay. à notre DG, Monsieur Youssou Le son de Deep Doundou Guiss, Music Penda Remix, au plaisir de tous les mélomanes tous les, joueurs, de tous les jours voilà si kanam tamit dina ñëw ah, ay exclusivité des tubes bien mhm. sûr notamment Nubian Mali qui a sorti un new clip avec Mbaye Dièye City à l'hôtel Étoile du Lac clip bu nice bi ngeen nar a am si kanam que des exclusivités des tubes bien sûr avec the Twins DJ PNG alors ji waa Hollywood ñoom dañuy indil ay cadeau pour ñi nga xamante ne ñoo gagné ñoo uh-huh. gagné trophée bi kon képp kuy joueur bokkoon nga si ñi nga xamante ne joué nañ final bi am nga droit am loo loowu cadeau boo xamante ne Hollywood moo la ko may Yeah. Donc euh, sur ce aussi, ceux qui sont actuellement en train de nous regarder, les téléspectateurs, vous allez nous appeler tout à l'heure au 88 628 22 22. Vous aurez le euh, si mon réalisateur est prêt, euh, Euh, on va voir si, euh, si, le son, le clip est déjà prêt. Au cas contraire, on va prendre euh, très rapidement deux premiers euh, téléspectateurs pour voir s'il y a des branchés. Et puis ñu xool parce que coupe bi tey balaa émission bi di jeex dama bëgg xam ku nekk ñaata nga siy dugal ah. waaw Olivet dugal nañ si ay chewing-gum Olivet yu baax yow mi di ñu seetaan lan nga siy dugal en live en direct au 88 628 22 22 damay jël ñaar rek balaa ma leen di may clip. ayca ñaari téléspectateurs alors ma xool kan moo njëkk ma xool sama premier téléspectateur. dafal ñu numéro yi officiel ñu ko ñu xool ko. nga may ko gars yi. yaa bu ko ruus affiché ko bu ko ruus. est-ce que Boubacar am na benn copain bu tudd Boubacar waxoon na tey mooy ñëkk dugg PNG. Ah, su yorul nag day yaru de. El Presidente la tudd. alors c'est parti ah balaa ma leen may clip damay jël ñaari téléspectateurs benn góor laa jël ak benn jigéen je vais prendre deux téléspectateurs un jeune monsieur une jeune fille ou bien un monsieur une dame au 88 628 22 22 88 628 65 65. 88 628 04 05 trois numéros pour joindre les PNJ en direct dans Hello Ado à travers euh, euh, ceux qui sont à l'extérieur aussi vous pouvez nous joindre via bien sûr le double 0 221 33 841 22 99 alors parti pour mes deux téléspectateurs avant de vous proposer de Dip Doundou Guiss euh, oui muy woy waaye ma waaye ma waaye ma Youssou Ndour c'était son anniversaire le week-end gars yi début match dañu ne on va gagner on va gagner pour Youssou et on a gagné pour Youssou raison pour laquelle notre premier clip ce soir on va démarrer bien sûr avec le clip de Dip Doundou Guiss ayca s'il y a quelqu'un en ligne on le dit bonsoir 88 bonsoir. salaamaaleykum salaam soxna si noo tudd. Euh, da ah ok sëñ bi noo tudd kon. sëñ bi naka la noo tudd. Mhm. il est parti hein. alors c'est le 88 628. allo. oui bonsoir. bonsoir. c'est comment votre nom. Khady Mbaye. Khady Mbaye vous nous appelez d'où. Cité Fadia. naka Fadia mu ngi neex. waaw mu ngi neex tuuti rek. yow yow yaay première téléspectatrice. xam nga nan laay def. Ah. gis nga sachet bii. waaw moom laa lay may cadeau d'accord. si biir dafa bëri ay kado waa Hollywood ñoo la ko may Khady d'accord. ok merci beaucoup. léegi da ngay joxe après si suuf sa numéro de téléphone. comme ça on va te joindre et puis te dire comment faire pour le récupérer. ok. kan ngay may dédicace tey. Ah, maa ngi may maa ngi may dédicace waa Fans Deep yëpp. Fans Deep kon clip bu ñëw yow yaa ko moom. Ok, ouais. <laughs> Ok, Khadi, merci à tout à l'heure. ok merci. c'est très gentil alors elle s'appelle Khady donc may naa ko ay bagages yu bëri la am ah. am naa fi ay paquet Oliver fii am naa fi ay euh, paquet yoo xamante ne gis ngeen lii la def ay menthe fraîche yu bëri ah bëri ay surprise ah waa Oliver tey ñoom ñoo leen di gâté ah chaque instant damay gâté sama téléspectateur de laa waxoon yónnee leen ma deuxième bi balaa ma leen di yónnee clip 88 628 22 22 s'il y Apo bul di tëj son wu ji bi. huit huit six cent vingt huit vingt deux vingt deux allo. allo bonsoir. allo. oui naka ma gaañ. waa mais nice gaañ. oui DJ Lengs la. eh DJ Lengs comment tu vas man. <laughs> mais kontaan naa grand. oui lépp nice gaañ. naka nga gisee Hello Ado en tant que DJ. wooy lépp naaj dinañ def lu naaj ah, sans gars yi ñu ngi déggee ah, na yàlla. jaajëf Lengs yaa ngi waajal yaa ngi waajal décembre yi. oui ñu ngi koy waaj ñu ngi koy waaj mais lu ma ñëwul bee passé na xaw na mu métti parce que dama am empêchement quoi. ah caméraman yu nekk TFM ñu ñëwul woon Lac seen bopp mu ngi métti instant yi. <laughs> mais kan ngay bëggee tey kan ngay bëggee tey DJ Lengs. yéen ñaar laa njëkk a bëggee parce que lu ngeen na trop quoi. jaajëf ñoo ko bokk man. di bëggee tamit sama jumeau quoi DJ Seba. DJ Seba <laughs> moo tasaare la grosse. oui <laughs> kooku moom du ma ko fàtte quoi kooku doomu ndey la si man. jaajëf kontaan nañ copain am nga tamit fii benn sachet boo xamante ne waa Hollywood ñoo ko may ah. oui oui oui dinaa ko jël si coo jëgul. Eh, am na benn concert bu ñu war a animé concert nit dof. oui eh, maa la benn ticket tamit nit dof d' accord. d' accord ok. ok Lenx kontaan naa si yow. ok merci à DJ Lenx merci à Khady de Fadia euh, Euh, merci à Khalid Fadja, merci à DJ Lenk. C'est un DJ, hein, c'est lui qui a l'habitude d'assurer la première partie des shows de PNJ, lui et DJ Seba. Bala PNJ di ñëw euh, donc minuit ba 2 heures DJ Lenk, DJ Seba ñoom ñooy assurer première partie bi 2 heures ba 5 heures PNJ tasaare li si des kon maa ngi leen di remercier bu baax. Alors sans tarder, au plaisir de tous les joueurs de la TFM, de la GFM, Biran, Biram. Euh, le coach Zabata Mané le buteur sama maan bi tamit jantal boy bu xees bi nu mu tudd encore ok Ousmane donc maa ngi leen di béggee ñoom ñëpp yéen moom clip bi ñu seetaan Dip Doundou gis aussi au plaisir de la diva Khady c'est parti. Oh, sa bés biñ lay dem buntu Pikine business bu Mercedes alkeke limousine dundu gis ni gën ñoo boot bukki bi golo bi moom a gënal Gucci Louis bi rappeur yëpp boo leen duñu su dip dofoo ni nga bëri bouge mètre loo mënti wax na la coûté cher ñoo ma mën duñ ko prouver dee yow nga lay tàcc pour nga dee ñoo ne te may tàkk capitaine doo Messi di teg si Habibé defal ma album bi ñu songo amitié ñoo xam na mbedd bi mer sama famille bég ñëpp a bëgg a feeñ sama clip man ma bëgg a jouer si ay film ñeme rey ñeme dee dama sikk yow gaynde nga gaynde bi simb yu nee na fulay ja Dakar waaye Dakar kenn du jënd fula no mbokk man aw ma jotu indi bu ma nob do rek ba tedd amay semil do man ak ma jafe dab yu gune bu màggandoo ak ay paala bi course la tax ma doon athlète mag sama gang bi kenn dootul toog arrêt car Tamu namu namu namu dum dum tamu namu namu namu dum dum tamu namu namu namu dum dum taayam dum dum dum dum dum dum dum dum dum fépp laay dem man la Youssou Ndour bëri bare mel ni you business laay def man la Youssou Ndour guichet fermé mel ni you ñeme risque investir ministre disque d'or TFM RFM Lobs Grammy Awards fépp laay def man la Youssou Ndour bëri bëre mel ni you business laay def man la Youssou Ndour guichet fermé mel ni you ñeme risque investir ministre disque d'or TFM RFM Lobs Grammy Awards Youssou Ndour Youssou Ndour waaye ma waaye ma Youssou Ndour Youssou Ndour Youssou Ndour waaye ma waaye ma Youssou Ndour Youssou Ndour Youssou Ndour waaye ma waaye ma Youssou Ndour Youssou Ndour Youssou Ndour wooye ma wooye ma Youssou Ndour aka ma mar lu ma mandiloo def loo ma tat kara nigga saxaar ak safara xal ci sama gémmiñ nan laay tëjee sama gat nigga Dakar ak kaara kaara kaara kaara kaar def na ma star loola cat nigga attan na adduna bi danga koy yennu rek sànni ko gauche wala droite nigga ragal na ragal a rangale bopp ñu bëggoon a gor sama baat nigga ala xam fàtte naa la si ginnaaw soo ma namee del xool sa kanam nigga baakaar ak xaalis ne fanaan bul defaat lu araam te amoo ci alal musuma gis malaaka bu baax bi maaxalaa dubaab bee jàngal gi jàngal gi ma jàngal may cooli cooli man la may onifo bi ñoo ngi joob di joomi loo ñi foog ni foo la noo damay cooki dama profitoo ci son bi toog ci bopp toxico yi foog hip hop bi foog ñu fay ma sama money showbiz génne jori jori njaay ma rodi almoomin musuñ lekk mbedd almoomin akuna ma tata ba underground bu fi saaga na la leer ni saaga nga kula mat papa seen rappeur bi ngeen gëmoon léegi ñëpp dem nañ ba xam ne ñu cune la ndax ma waaye ñëw leen ma duuma leen taaf taaf lan damay joomalul borom bëti tàkk man si laa ma tax rappeur yi ma fay yëpp booy kenn dootul mën a tàkkaat Youssou Youssou Youssou fépp laay dem man la Youssou Ndour bëri bàyyi mel ni you business laay def man la Youssou Ndour guichet fermé mel ni you ñeme investir ministre disque d'or TFM RFM L'Obs Grammy Awards fépp laay def man la Youssou Ndour bëri bëre mel ni you business laay def man la Youssou Ndour guichet fermé mel ni you ñeme risque investir ministre disque d'or TFM RFM L'Obs Grammy Awards Youssou Ndour Youssou Ndour waaye ma waaye ma Youssou Ndour Youssou Ndour Youssou Ndour waaye ma waaye ma Youssou Ndour Youssou Ndour Youssou Ndour waaye ma waaye ma Youssou Ndour Youssou Ndour Youssou Ndour wooye ma wooye ma Youssou Ndour Alors, c'était au plaisir bien sûr des joueurs de la TFM on vous l'avait promis amis téléspectateurs dañuy dem jëli pot bi ñëw mercredi émission tagal leen ko fi ñun ñoo ko waxoon ñoo ko def donc félicitations encore une fois à tous les joueurs hein. félicitations bien sûr au directeur euh, monsieur Youssou Ndour euh, monsieur le ministre euh, encore une fois le trophée c'est pour vous de la part de tes jumeaux de la part de toute l'équipe euh, de la TFM les gars yéen si kon yéen laay déglu képp ku wootee dama laaj lan ngay def si trophée bi waa Hollywood dugal nañ si ay chingom Hollywood <laughs> yow si lan ngay yëngu lan nga siy dugal la réponse c'est au 88 628 22 22 mais bi am na sa benn caméraman bu nekk fii foog mu ñëw waa bi kay Baye Fall non Baye Fall kay yu yu kay sa benn caméraman si joueur yi la bokk fekkee yaa ngi régie kay gaaw parce que sama jantal booy la moom ailier droit la doon joué yu bëgg naa nga teew nga wax ñu bi ni n'est-ce pas Ji. yeah mais complexe la mooy filmer nii de mooy ñu <laughs> coach nii caméra bi nii. ok allez c'est parti 88 628 22 22 allô. allô. bonsoir. bonsoir. c'est comment votre nom. Awa Soumaré. Awa Soumaré vous nous appelez d'où. de Paris. oui. comment ça se passe là en France. bah ça va ça se passe bien. est-ce que tu arrives à reconnaître les jumeaux <laughs> Ah, <laughs> ah bon? Est-ce que c'est sûr? Alors c'est qui pii c'est qui ji? Alors kii mooy borom casquette vert bi. ah bon? alors ji mooy borom en là je vois pas bien. <laughs> alors félicitations Awa Soumaré tu as trouvé bravo. en fait man maa nekk seen première émission enfin émission Café Ratal. ah ok donc c'est c'est c'est notre Awa Soumaré nitu démb. voilà c'est ça. bien. <laughs> ah mais toi tu es fidèle aux jumeaux hein. ça fait plaisir hein. Ah, y a de y a de cela ay six ans yooyu hein. bah oui ça fait longtemps quand même. bien et alors, qu'est-ce tu, que tu es en France alors. comment. alors tu es là-bas en euh, bravo et ça se passe comment qu'est-ce que tu fais Ah, ça se passe bien. Bah là, je parle en même temps, je suis études tout. Bravo. Ça, ça fait plaisir. vraiment. Ah, bah oui, ça plaisir aussi. Et quel est le ou bien le clip qui te fera plaisir, euh, Awa Comment Le ou bien le clip qui te fera plaisir <laughs> Bah, n'importe. Ok, d'accord. Après, c'était juste pour parler avec vous. Euh. C'est Mimi, c'est gentil, ça fait boum. ça <laughs> Ça fait plaisir quand on a lan ngay wax mi fa PNG ñu lay déglu. ah mi fa PNG maa ngi nuyu ñoom ñëpp. waaw jërëjëf si ñoom Awa Kébé Awa Diawara. Kaalu Dar. Uh-huh. <laughs> comme ça comme ça se voit que fàtte wool gars yi. ah non du ma leen fàtte ñoom Yarakar mooy tout. <laughs> président bu bees bi xam nga nu mu tudd. xaw ma ko. Bokar Tectonique. Pambalo ah, ak ñoom Bobo tous là ils sont tous là. ah bah c'est bien. alors tu sais va faire. Mm -hmm. après tu vas envoyer un message à mon jumeau tu ton contact d'accord. ok pas de de toi Awa Soumaré. merci à vous aussi bisous. allez merci elle s'appelle Awa Soumaré kii sama nitu démb la donc euh, dégg ngeen lu mu wax nee na jamonoy jamono première émission rajo yu PNG jamonoy Safir FM il y a de cela 6 ans donc mention spéciale à elle Awa Soumaré depuis la France nitu démb yi duñ mës a réeroo def leen ni moom double 0 221 33 841 22 99 euh, ceux qui sont à l'extérieur ceux qui sont ici au Sénégal c'est le 88 628 22 22 n'est-ce pas Alors, Monster P euh, s'est permis aussi euh, de nous suivre, hein, de ouais. nous suivre via Snapchat. Snapchat. Yeah, hello, hello.

est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne. allo. oui bonsoir. voilà la Boubacar El Prési. ça c'est le président. oui. comment Naga. tu vas mon frère. naaj naaj. naka journée bi. waaw xati xati. waaw mais tey da nga ñëwoon Almadies wala. ah gis na de. naka se passe bien. oui. alors noo gisee noo gisee coupe bi coupe bi. non bu sama de gars yi maa seen buteur ah. da doon sëfe da doon sëfe quoi. maa seen buteur. da doon sëfe. waa démb ba nga wootee rajo loolu nga wax. waaw mais tey moo moo dama répété ko da doon laa mujjee def. mais naaj kontaan naa ci yéen. jaajëf bu ba. cëntal booy. yaa. moom da ngay métti quoi. waaw mais da nga waroon ñëw seetaan si match bi nag. mais xam nga jóg la rek. yaa la lan ngay dugal si suñu coupe bi lan nga siy dugal waa Oliver ñoom ñi leen si dugal ci nga lu xees lu xees laa fi dugal lu dire ah parce que da nga xam ne jii dafa bëgg lu xees. non non non non bul sabote bul sabote loolu leer na loolu leer na. ne ko bu mu sabote. mais kontaan nañ si appel bi. na si def leneen mais yow sa oto nga ñuy dégloo wala yaa ngi seetaan émission bi. si biir oto bi. si biir oto bi 99 point 4. mooy naka mooy ñëpp waa famille bi euh, PND yëpp. yaa yaa. Euh, ñoom Doumène. Mhm. borom ñoo ñoo laaj pourquoi. yaa yaa. gentleman. mais ban son nga bëgg ñu may la ban son nga bëgg ñu vërës la ñu vërës la ko. non bu la ma jox baax naa man bañ ma dara. ah. <laughs> na gars yi kontaan rek. d'accord ok. ok gars bro. allez merci mon frère. ok alors il s'appelle euh, Boubacar donc di remercier tous les hommes de tenue hein. en train de regarder les PNJ muy policiers yi muy sapeur pompier yi képp ki nga xamante ne homme de tenue nga yaa ngi respecté PNJ yaa ngi bëgg lu di def ñu ngi lay béggee encore une fois parce que yen homme de tenue yéen ay yen yen yéen ay jàppale Sénégal yéen ay jàppale le monde entier yéen a tax tey sécurité am kon amuñu seen fay ceux qui sont à Saint-Louis aussi euh, Waljojo ah homme de tenue la mu ngi Saint-Louis mu ngi seetaan PNJ ñu ngi koy béggee bu baax encore une fois

Elzo Jamnong. bon damay benn message si sama portable seex ah. lire damay lire ay quelques messages. Elzo P qui a mis le feu ah. qui a euh, au théâtre Daniel Sorano bien sûr de passage one love mhm. et big big respect à lui et à tous les artistes euh, qui étaient là-bas notamment Dip Doundou Guiss Omzo mhm. voilà ils étaient artistes bien sûr. au big méga concert de Elzo que vous allez voir prochainement bien sûr. alors ki nee na mais sama jumeau yi yéen a ngi teg lu nice émission bi neex na vraiment je suis fier de vous yéen a tax TFM am coupe bi vraiment jàpp ngeen si seetaan ana match bi donc chapeau hein? on lui dit <laughs> bonsoir s'il y a quelqu'un en ligne allô. oh il est parti allô allô une fois allô deux fois. Apparemment, il est parti, J. Yeah, ben, s'il est okay, parti. Ok, il y a quelqu'un en ligne, allô On dit bye-bye, alors Allô Allô une fois Allô deux fois Apparemment, il est parti, hein Alors, euh, pour Awa Soumaré, euh, je vais essayer de voir euh, ce qu'elle a envoyé un message. Pas encore. Awa Soumaré pour le numéro de J, de mon jumeau. c'est le 77 244 22 22 pour ceux qui peuvent pas appeler vous pouvez envoyer un message 77 244 22 22 euh, ainsi que vous pouvez avoir le Snapchat des jumeaux PNJ allô bonsoir oui bonsoir oui vous êtes en direct monsieur euh, salut ça c'est la voix de qui euh, c'est Moustapha Diop le neveu de

Ok, et cette année, tu fais quelle classe Dans la cinquième. La cinquième. Tu es au niveau de quelle école Mikado. Et vous avez commencé vos cours ou pas encore euh, Bon, pour les cinquièmes, on va commencer le 7 vendredi. Le, le 7 vendredi. D'accord. c'est super. Alors, tu fais dédicace à qui Bon, je la dédicace à Fanta Diop. Elle est vraiment fan de vous. À Sophie Claire Ndour. Oui. Et à Tonton Cher qui est en au stade en train d'entraîner les joueurs. Les cadets. il a toujours son, euh, équipe Et, quel est le qui te fera plaisir Le morceau qui te fera plaisir Oui. Moi, le qui me fera plaisir. Oui. Ben, j'aime beaucoup de sons. Oui. Mais euh, tu vas choisir euh, quoi Je vais devoir dire. Euh... <laughs> Donna. Drake. <laughs> mon ami euh, je vous envoie la vidéo sur Snapchat. D'accord. Okay, tu as de mon jumeau Yes, non, non. C'est le 77 244 cent 22. Comme ça, tu vas, noté. comme ça, tu vas danser et tu vas nous envoyer ton snap, d'accord D'accord. merci à tout à l'heure. Allez, merci à tout à l'heure et bonne chance pour Cheikho, hein Allez, abo ah yokkal sama son tuuti ñu may ko ñu Ajá. Break. No, no. <laughs> ok Birane. eh sama joueur yi kaay leen kaay leen kaay leen. sama joueur yi kaay leen. ok <laughs> alors. Alors, ils sont, ils sont déjà là. Mais. Bilal. Venez, Bilal. Bilal, venez, venez, venez. Ouais, Karen, venez rousse, Karen. Ok. PNG, là, Karen, venez rousse. Please come. Karen, venez rousse. ok, alors, J, 4. alors on va regarder un joli clip en attendant que tous les joueurs bien sûr de la TFM puissent s'installer euh, bien sûr ñu présenter leen deux wala trois joueurs on va regarder le clip de Jamnong bracelet. bien sûr ku amul bracelet gars alors euh, j'ai pas dit des appels j'ai dit des messages hein messages quelques messages bien sûr regardons le clip de et puis juste après on revient pour le show bracelet hein bracelet Elzo Jamnong tu donc moom moo amoon concert bu ngand bi le week-end à Sorano euh, J. Euh, l'extrait de Sorano ça sera pour quand. Voilà, donc on va monter ça bien sûr, euh, peut-être le, vendredi ou bien le mercredi prochain. Parce que ce vendredi, je pense, Ce vendredi, il y aura Nit Duff, l'homme de Louga. Il sera l'invité de PNG à 1h du matin. Ce vendredi, c'est à ne pas rater. Les jeunes de Louga, préparez-vous. Nit Duff un très grand concert, bien sûr, au stade et au grand théâtre. C'est à ne pas rater. Il sera l'invité de PNG ce vendredi dans Hello Adom. Alors sur ce, on va essayer yëpp s'il y a d'autres branches ana ah, sama Hollywood bi paquet bi fii laa ko defoon de. ok Apo alors on est en compagnie de Hollywood bien sûr euh, qui nous accompagne waaw Hollywood ñoo ñuy accompagner pour notre émission 88 628 22 22 on téléspectateur en ligne allô. allô. bonsoir. bonsoir. c'est madame ou mademoiselle. c'est mademoiselle. c'est comment votre nom. c'est Nancy. Nancy vous nous appelez d'où. Euh, du, de France, de Nice. De nice. Alors, si je, vous, donne un paquet de chewing Pardon Si je vous offre un paquet de chewing vous allez prendre ça Le paquet de chewing Oui. Euh, j'ai pas compris. <laughs> Alors, j'ai envie de vous offrir un cadeau. Est-ce que si je vous l'offre, vous allez accepter mon cadeau Bien sûr. Ok. Alors, je l'envoie tout de suite, d'accord pas de problème. Et tu es où au niveau de la France, Nancy À Nice. À Nice, il y a... Et ça se passe bien là-bas Oui, ça va, il fait chaud. Ah temps-ci, vous, avez... une star là-bas. Vous faites le buzz hein, ces temps-ci. Pardon le football quoi, avec Balotelli. Ah <laughs> Premier du championnat actuellement. Bravo et à vous. Alors Nancy, toi, comment tu trouves l'émission Hello Ado euh, Franchement, c'est bien. Moi, je regarde souvent. Ok. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie là-bas? Tu étudies, tu es élève, tu travailles? Je suis au lycée. Tu es au lycée? Et tu suis quoi là-bas? Euh, euh au lycée, Et tu es sénégalaise ou bien française? Sénégalaise. Sénégalaise, bien sûr. OK, tu as l'habitude de venir au Sénégal, à Dakar? Tu as l'habitude de venir à Dakar, au Sénégal? Euh, de temps en temps pendant les vacances, oui. le mois, le mois de décembre, PNJ t'invite à Dakar, d'accord? D'accord, pas de problème. <laughs> Alors, tu fais une dédicace à qui la France euh, Je fais dédicace à toute la famille Sarr, oui. Maman Sarr, Fali Sarr, Yai Boy, euh, tout le monde. Mamboy. Mamboy, voilà. <laughs> Alors, tu à sais... Calmi, oui. ta Sophie, oui. et son jumelle aussi, Calmi et tout. Ok, alors Nancy, on a envie que tu puisses faire un snap pour les jumeaux et tu nous l'envoies. Maintenant, on va te demander quel est le son qui va te faire plaisir. Le son, alors, euh, je vais prendre euh, euh, de DJ Khaled. Si bon? D'accord. OK. Alors, au moment où J va le mettre, tu vas danser et tu vas nous faire un petit snap. D'accord. Il faut que je prenne vos snaps, votre, snap aussi parce que je l'ai pas. Ouais. Alors, tu as noté le numéro de mon jumeau? Non. Vas-y, note. C'est le 77. Attends. Je note 8 là.

Elle s'appelle Nancy de la France aussi. Euh, Myriam de la France en train de regarder les PNGA. Elle fêtera son anniversaire ce week-end, bien sûr. Euh, elle Happy est connectée birthday. depuis la France. Par anticipation, Myriam. Gros bisous. Gros bisous. Joyeux anniversaire de la Et, eh, part de P&G. Yeah, happy birthday. Ça fait plaisir d'entendre euh, Mr. en direct. Euh, c'est Unabel, regarde ça, qui kiffe euh, l'émission Hello Ado. Ça mm -hmm. fait au cœur. Yeah. Donc, de passage, pour tous les connectés qui nous suivent mhm. via le net aussi, mm -hmm. mention spéciale à vous. Alors, tous les Sénégalais connectés au niveau de l'extérieur, encore une fois, c'est possible de faire plaisir à vos amis, à vos frères, à vos 3 841 22 99. Apoulaye, bien sûr. Allô, allô, bonsoir. Il est parti Apparemment, il est parti à Poulaille. Alors, J, j'ai volé le portable de mon jumeau pour voir quelques petits messages. Les auditeurs euh, branchés, j'ai pas dit on appelle, hein? vous avez vu. Donc, j'ai pas dit un message, mais ils vont pas permettre de lire le message. On va prendre l'auditeur ou téléspectateur Ouais, oh, ça va Bien, et vous Tu vas bien Je vais très bien. Alhamdulillah, la mission TNG. C'est pas Alpha ça Ouais, toi-même tu le sais. Ça c'est Alpha, Alpha Chakri. From Yara, from Guinée, man. Ok, ouais, tu vois, ils ont mis ça au niveau de notre trophée. J'espère que toi tu vas nous amener du Chakri. Ouais, pas de souci, man. Mais, mais, mais, bah, c'est ligne, ligne canne la bail. Ça fait deux heures de temps, man, essayer ah, bi dafa saf. <laughs> non, ligne, bi ligne canne la bail. Le qui, prédit la voix de ba Babacar, bon bail, moi, moi, moi, jox bagage yi gars, dama, ouais, tante ba son bail. Yo, est-ce que nekkul gel bu neex baat bi la ñëkk wax allo moom nga doon waxtaanal ngay sóob. waaye non non waaye waaye benn gel moo ma téyoon si ligne bi gars yi di ma kii rek waaye ma ne ko waaye man PNG laa soxla baay. <laughs> ok Alpha kontaan naa si appel bi. <laughs> waaye maa la gën a kontaan baay naka bagaas yi naka elo elo elo naka la sax elo Ado ah. elo Ado yow c'est la première fois ngay dugg en direct. tukulóor tukulóor yi ñoo koy woowee elo. ah elo waaw mais français naka lañ koy woowee. <laughs> <laughs> Alors, c'est une fête d'indépendance, vous l'avez fêtée récemment, le dimanche 2, 2 octobre, ça s'est bien passé Oui, la fête, ça a été bien passé pour la première fois à Dakar. Mm -hmm. Vraiment, gars, ils sont venus beaucoup. Ok, communauté guinéenne, ils sont venus waaw gars yëpp ñëwoon nañu quoi waa PNG rek ñoo ñoo ñoo ñëwul woon quoi ñoo fa manqué woon quoi. waaw mais on t'avait dit qu'on avait un programme non on t'a expliqué. waaw je sais mais en tout cas daal maa ngi leen di remercier si si publicité bi quoi. jaajëf man. mais maa ngi déggee toute la Mifapel ji. yaa. waaye di déggee waa TF waa TFM quoi di déggee euh, grand bi le grand boss Youssou Ndour. Youssou <laughs> di déggee gars yëpp di déggee laay fokkal ak président Bab. yaa. ak euh, Doumène de Pirio moom moo ma jox numéro président bi quoi. de Pirio jaajëf man. waaye di déggee Karbala waaw mais mais mais Baye loo loo ma may loo ban film nga may may Baye. ban son lañ lay may. waaw. sa mbokk yi sa mbokk yi ala ac woyma kanja koora la fo aka bëgg kanja koora <laughs> kanja koora kanja koora woyma seetanga clip bi mi okkimo mi okkimo Boubacar Diallo mi okkimo kanja kanja kanja joora no no woyma woyma waaw wuy nañ la wuy nañ la ok so kii clip boobu dafa neex quoi bëgg naa ngeen ma ko quoi ma seetaan quoi live ma dund ko même ok ok y a pas waaw tege ma makka de ti tigé na ma ko asisla mi fa tien ji wallo ok on est ensemble ok bro oui ma bangona wala la ba guddi waa a heure kan Omzo Dollar lañu invité tey si guddi ah, ah Omzo Dollar waaw am amu bëgg ok man waaw mais clip kii bi tam defoon naa quoi clip kii Omzo om kii bi waajooju quoi bracelet bi bracelet Exo ah. jam na bracelet non non clip bi defoon naa ma kii yàgg naa sa kii déglu son bi quoi mais maa ngi sa seetaan clip bi jaajëf waaw mais bro euh, di remercier encore une fois Alpha un fidèle auditeur de Vibe euh, mention spéciale à lui waa Vibe ngi déglu ñu ngi seetaan mention spéciale sama gars yi. waaw 88 628 22 22 Gineco bonsoir. oui bonsoir au plaisir de Nancy allô allô une fois puis Allô, oui. Oui, bonsoir. Allô, oui. Wow. Oui, bonsoir. Vous allez bien? est que vous pouvez est-ce que la télé et vous allez nous entendre à travers le téléphone directement, c'est mieux. D'accord. Voilà, vous vous appelez comment? Moi, c'est Marietou, Madame Diouf. Madame Diouf. Oui. Vous nous appelez d'où, Madame Diouf? À Dakar Cypress. Dakar Cypress. Ani monsieur Diouf? Monsieur Diouf mi ngi nii seen est-ce que ah, xam nga ne ñaari ñaari monsieur ñoo fi nekk fii. waa gis nga déggoo ma ne seen doom baay la. <laughs> kon kontaan nañ madame Diouf. kon monsieur et madame ñooy seetaan émission Hello Ado bi ah. waa gis nga man temps yii passé damaa woote ba sonn. dëgg la ah, woote naa ci affaire xar bi. um euh, kii jël sama numéro euh, Oumy Oumy jël sama numéro mais dara. ah waaw kon mujjee woo gañe xar. non non gañe ma xar yi tamit nag. mais maa monsieur Diouf jëndal la xar. waaw jëndal la xar après xam nga rek yow tamit nag. Ah, <laughs> ok mais madame Diouf. oui. yow fan nga dëkk. ñoo ngi Cyprès. Cyprès yi soriwul. non non ñu ngi ci cas xam nga sànq damay dégg ngeen wax affaire euh, militaire daal xam nga xam nga moto militaire la moo tax ma ne xaaral ma woote rek. ah, ah. moom homme de tenue la bravo. waaw gis nga homme de tenue la moom. <laughs> kon yow dal nga si homme de tenue ah dal nga si dal nga si. ah waaw gis nga de gis nga de yow. <laughs> alors léegi lan ngay wax homme de tenue yëpp ñuy seetaan PNG. non euh, ñu gën a jàpp re xam euh, moo xool euh, ñoom daal ñoo sécurité Sénégal bi ñoom ñoo ko yor xam nga. dëgg la mais mais ñoom ñoom nu ñu mel si tali bi noonu la ñuy mel si kër gi léeg-léeg wala. non non non non non non non non ci kër gi moo amul problème moom. ci kër gi moom ah. dañoo wàcc moom. foofu duñ jëlee lii fii quoi. <laughs> ok alors madame ban ban man soo ngay may sa jëkkër monsieur Diouf. kan mooy artiste am ah ko jàmbaari Omar Pène bi rek. Omar Pène. waaw gis nga. waaw moom eh, en plus sama papa dafa bëgg Omar Pène waaw gis nga gis nga lool. kon ñoom ñaar ñoo koy bokk dégg nga. naa ñoo koy bokk. <laughs> ok bëggeen ma bu baax léegi may naa leen benn sachet boo xamante ne ay cadeau Olivier la def d'accord. ah ok merci beaucoup. léegi da may da may bàyyee sa numéro si suuf bind si madame Diouf ah. oui d'accord. d'accord comme ça Babacar Passé dina la ko indil si presse. d'accord incha allah ok. merci allez. Merci beaucoup, Madame Diouf. Euh, Merci et à, à Monsieur Diouf, euh, voilà, qui nous appelle en live, on est a euh, Faites mm -hmm. comme eux au 88 628 22 22. Monsieur Pi, exclusivité laa la bëgg a may nii son la clip bi sax génnagul. clip bi génnagul clip bi génnagul lu bees tax la. waa xaaral ma jël kii ba pare ñu ñëw si yow si. atiwaat allo bonsoir. wàññi wàññi oui monsieur vous allez bien. allô oui. vous êtes en direct monsieur c'est comment votre nom. Eh, sama gaay waaw paa man la Melo Baye ménageur link yeah Melo comment tu vas Melo yeah benn Melo ñaari Melo sama nigga si sama ñaari nigga si yeah jëndal boo waaw ah, mais mais moo si gën a aay kan moo si gën a aay kan moo si gën a aay eh, eh, eh, football lan yow lan ngay laajte yow <laughs> ah bu ree bu ree bu ree bu ree. kenn du reetaane nii ah. Hmm. yaa ngi direct kenn du reetaane. ah mais maa leen di big up ah sama ñaari niggas yi. jaajëf Melo ñun tamit ñu ngi lay big up ñu lay sharaat man. mais keroog li ñu ñëw ñu ñëw woon euh, Lagros benn instant xaw nañu métti ah. booy tardé ngeen Lagros après maa may benn clip bu bees boo xamante ne Lagros lañ ko tourné ngeen xool li ngeen tardé. lay teg nii da teg nii da teg nii da ngeen de. <laughs> ji ne da nga graw man après dañ leen koy vrèche nubial maa de waaw ay yee gis naa loolu mais maa ngi big up sama DJ bi d'abord waaw Lengs jantal boy la jantal boy la à tous les DJ qui nous regardent actuellement. bëri waaw big up yéen ñaar gis naa bon en ni ngeen ko collaborer quoi ni ngeen téyante seen biir quoi job boobu nice na. guerrier la job kat la quoi ñun dañu bëgg kuy kuy job man kuy job every time. non moom jamaïcain la jamaïcain la. yeah what's up. mais gars yi kontaan nañ si woote bi de paa bi ah. waaw bon en fait euh, à part ça maa ngi big up euh, sama benn bro bu ñuy wax Lune. Lune waaw. ok. chéri chéri Sali. oui. en même temps di nuy euh, chéri Lenx bu mi ngi tudd Zeyna. de si bëri la nag de. waaw waaw gis nga <laughs> di di big up tamit DJ Jo. Jo waaw Jo bu top. jantal boy la Jo. DJ Taf. DJ Dala. Tous les DJ qui nous regardent actuellement. Nous les shut up, man. Okay. Ah, Merci encore une fois au manager de DJ Lengs très gentil di ko remercier encore une fois di remercier képp kuy DJ tamit képp kuy animateur di seetaan PNG ñun tamit ñu ngi leen respecté euh, ñu ngi leen di ñu ngi leen di béggee bu baax Karma Diallo en train de regarder l'émission Hello Ado gros bisous à toi et à Dakar alors sans tarder Mr. G en parlant du waaw en parlant du clip gars yi dañu namm clip bi dama bëgg ñu yónnee ñu ñu vrech leen quoi vrech ah. leen clip bu bees. kon da bëgg ñu dem ba hôtel étoile du lac. voilà fi ñu defee woon soirée beeg yendu bi. parce que émission bi 30 minutes moo si des. waaw waaw dama bëgg ñu teg clip bi. gars wax ñu naka lañ gisee clip bu Nubian bi. ak Mbaye Dieye Faye. gars yi lii lu bees la yéen a koy ñëkk seetaan si Hello Ado si vous êtes prêts on y va on va découvrir le clip de Nubian jeune fille pas tout à fait comme les On va regarder le clip. Una belle ragazza. Nubian Bay Day Fight. Brand new song. Achawai. Jiggy my, jiggy my, jiggy my baby. bul ma mos a sori ma jëlee fi ma jëmee fi ma téyee fi ma téyee foofu neex jege ma ma jege ma baby ma mos a ma jëlee fi ma jëmee fi ma téyee di ma téyee foofu neex ni foofu neex yow laa doon seet gis naa la long long time ma lay bëggee nga may ni ma la nobbee ak ni ma la bëggee xool naa ba xool waaye yaay sama seytaane loolu mën naa ne sama mbëggeel amul limite ñu bëggante yow tamit baby yaay sama lapin di sama cappe laaja samay copain jege ma jege ma jege ma baby sori wala bul ma masa sori fi nga ma jële fi nga ma jëme fi nga ma téye fi nga ma téye foofu neex jege ma jege ma jege ma baby soriwu la bul ma masa sore fi nga ma jële fi nga ma jëme fi nga ma téyeeti fi nga ma téye foofoo neex doo seen morom nga ni yegg si sama jaaga yaa leen ëpp xorom di sama salimata the way you give me your love <laughs> baby fi nga ma def my heart belongs to you lady jële ma fa oh baby yaay sama la sama cappe laajal samay copain jege ma jege ma jege ma bébé sori wala bul ma masa sori fi ma jële fi ma jëme fi ma téye fi ma téye foofu neex jege ma jege ma jege ma bébé bul ma masa sori fi ma jële fi ma jëme fi ma téye fi ma téye foofu neex ma téye foofu neex. fi ma dugal baby ba ma taf ci yow. ci ma génn. jëlee ma fa. danga dof bul fa jógee toog fa foofu rek la nu bi yan jegeel ma ko. jege ma jege ma jege ma bébé bul ma masa sore fi ma jëlee fi ma jëmee fi ma téye fi ma téye foofu neex. jege ma jege ma jege ma bébé.

fa duggee ba tey loo ci gis foofu rek la fi ma téye foofoo neex <laughs> eh waay yow eh bu ko dagee nii waay mais puis mais puis est-ce que dégg nga grand mbay lu mu wax waaw nee na toj nga ndongam <laughs> en tout cas hôtel étoile du lac moo nekkoon noonu gars yi clip bi foofu lañ ko tourné euh, PNG euh, demoon nañ fa parce que dañu waroon yóbbul benn gel euh, Nubian Madi ak Maygay Faye dañu ne les jumeaux suñu clip bi dañu soxla benn xale bu jigéen bu rafet lañ soxla pour clip bi alors ñu yëkkati benn xale bu jigéen bu rafet yóbbu ko ba étoile du lac ne ko tournel ak gars yi donc j'espère que vous avez aimé le clip Mbaye Dieye Faye Nubian Madi ak la diva xale bu jigéen boobu nag benn ex la. ah kenn du ko defee nii sama jumeau dama koy weer si rajo si télé bi yaa ngi direct kenn du ko defee nii. ex ji la ex ji mais bi dafa génn rek ji commencé waat quoi mais puis est-ce que du ma ko jilaat <laughs> bon dafa rafet de est-ce que du ma ko jëlaat. mais exam la. mais na gëm yàlla bàyyante nañ gañ na gëm yàlla bàyyi. mais clip bi feeñ mu naan. mais est-ce que lu ma ko jëlaat jëlaat <laughs> le boy là il n'est pas sérieux franchement c'est un farceur c'est un comédien donc voilà de passage gros bisous à la charmante Irma qui a participé au clip euh, One Love à Nubian Madi et à sa charmante femme qui nous mm-hmm. regarde actuellement borom soble si yaasa yu neex yi Oumou gros bisous à toi l'ami femme Mbédié Faye connecté depuis Sacré-Cœur ñoo ngi doon seetaan clip bi de passage bébé Kiné avec toute la Mifa Tamam mm. Ndiaye Thiané chapeau à waxuma appel de sinon duma mën a lire benn message allez ñu jël euh, live and direct 88 le 628 22 22 s'il y a quelqu'un en ligne bonsoir allô bonsoir allô bonsoir yaa ngi live and direct allô bonsoir apo tijil son bi bu ko rus bu ñu tëj sama son waaw bonsoir na

Pendo, on dit bonsoir y a quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est comment votre nom? Mam Biram Diouf. Joueur, footballeur, voilà. non ban non <laughs> man la Mame Birame Diouf HLM Bongre waaw xaritu seen seen cousin Medoune Ndiaye quoi. eh kooku de Paris. yaa yaa wala fan nga ñu woowee nii instant yi. Paris si fan nga nekk. man maa ngi ma xool maa ngi dëkk Noisy-le-Sec laa dëkk. yaa ngi dëkk fan. Noisy-le-Sec. ah ok sa se passe bien là-bas dëkk boobu xaw ma ko. waaw <laughs> ah, sant bu baax parce que en fait ci bokk quoi. ah ok sànq dégg nga sa mbokk française yi ñu woo léegi waa ñoom. Ah, Nancy et tout waaw maa leen dégg waaw comme tey Diop maa leen dégg bi ay Nancy ñoom ñëpp maa leen dégg. gëj nga Kaolack wala. waaw xanaa bi tuuti 4 ans. 4 ans. Mm. kon danga dem France rek toog fa. non même pas. xanaa dañ la may jabar foofu. non amaguma jabar ba li ngay def baax <laughs> mais sinon ani seen ani ani ani seen sœur si jàmm. Denise elle bien mu ngi Maroc Thérèse mu ngi Espagne. ah ok waaw bëgg naa ñëw parce que man gars yi Médoune la quoi Médoune Ndiaye seen cousin boobu ko. yaa dëgg la. yaa dëgg la mais yow yow yow. Ah. yow kontaan nañ si appel bi en grand. waaw bu leen wax li ngeen def naaj na trop Baye Fall. jaajëf waay jaajëf champion est-ce que xamoon nañu def. Eh, il est parti Mam Biram. puis Mam Biram donc il nous appelle depuis la France dañ ko amee benn son Bouba. Bouba il doit venir au Sénégal il paraît. au Sénégal te dafa génne benn son dédié ko tous les Sénégalais. ah bon. DKR DKR. sérieux. non son bu bees tax nee naa la Hello Ado dañ leen koy vërës si tàng kon daal Hello si ngay gis clip yu bees yi. son yu bees yi fii nga koy déggee. kon luy baax yeeg yu neex yi rek fii la que des branchés dans le rendez-vous des branchés. mais ñu ko ñu xool ñu broche ko gars yi ah. ayca gars yi pare leen ko Bouba la ah. Bouba dafa war a ñëw Sénégal dafa war a ñëw Dakar. maye maye bien sûr Bouba DKR exclusivité da ngeen sum way ceebu jën oui Penda mhm. Mbaye. Ah. woy na ay mbër Bombardier. Tyson mbër yi bëri lim donc euh, il sera au Sénégal le 2 le de ce mois-ci. bien sûr euh, mhm. monument de la Renaissance Bouba. ok alors MHD MHD ñëwoon na Sénégal gars yi na Dakar wanoon nañ leen concert de quelques extraits Bouba aussi il sera là donc ñoom ñoo choisir Sénégal ñoom ñoo choisir Dakar narul yomb euh, gars yi 88 628 22 22 à 15 minutes de la fin de l'émission allo ayca 15 minutes moo des de ah, allo bonsoir. waaw mais sant tur bi naka la grand. Euh, man man Moussa laa tudd quoi. Moussa fan nga ñuy wooyee. Euh, maa ngi woote ba Paris. Paris nga nekk yow. yow dafa mel ni yow buubaay moo la yëngal la dafa mel ni buubaa bee la yëngal yow. non buubaa yëngal la lan moo waral sa woote kon. ah waaw sama woote bu quoi. mais yow Moussa fan nga dëkk si Paris. fan nga dëkk si France quoi. <laughs> fan nga dëkk si France. ah maison Alfort. ah. maison Alfort maison Alfort laa dëkk. Euh, ah ok foofu ça se passe bien. <laughs> oui ça se passe bien. merci. ok kan ngay bëggee est-ce que am nga ay parents fii Sénégal Moussa. maa ngi bëgg waa ñaari tali. ñaari tali waaw daanaka waa Biscuiterie waa Médina. Uh-huh. léegi kañ ngay ñëw kañ ngay ñëw kañ ngay ñëw Dakar yow. si am naa fa ay parents. mais kañ ngay ñëw Dakar. te nga wàññi sa télé. ok donc Moussa di ko remercier il nous appelle aussi depuis la France hein? donc euh, di leen remercier tey waa France ñoom ñoo jël ñoom ñoo jël nam li donc mention spéciale à tous les Français en train de regarder les PNJ chapeau et respect à vous hein? J. Yeah. ayca loo may may. mais ji yaramam dafa tàng gars yi kon koñ leen ko spéciale à lui c'est mon jumeau donc moom mooy assurer bagage yu neex yi donc sama gain la waaw sama gain jantal boy alors damay lire benn message si portable sama seex bi ki nee na salut PNJ c'est Sophia depuis Tamba depuis Tamba j'adore votre émission je suis avec mon frère Ahmed il ne manque pas hello ado il vous aime kon waa Tamba gis naa seen message si 77 244 22 22 kontaan naa si yéen tamit waa Tamba même su ngeen mënul dugg dinañ lire seen ay message xam na yéen tamit yéen a ngi ñuy seetaan te bokk ngeen si émission bi. donc mention spéciale à vous tous qui êtes en train de regarder les PNJ xam nañ ne ñu bëri bëgg nañ dugg mais ñu bëri tamit mënuñu dugg donc envoyé leen message 88 628 22 22 10 minutes moo ma dese gars yi sama 3 laa jël. allez mets-toi oui Aïcha ñu ne ko bonsoir ji allô bonsoir allô bonsoir allô une fois allô deux fois apparemment on va lui dire bye bye lui oui bonsoir allô waaw. waaw sëñ bi da ngay wàññi télé bi nga wax ak ñun directement si téléphone bi mu gën a nice. ndax maa leen di waxal naa ak kër ma ma wàññi télé bi quoi. ok noo tudd. man Ibrahima laa tudd maa ngi ba Libi. Libi. waaw Libi laa ngi kon waa Libi ñu ngi seetaan hello ado waa Libi. waaw ñu ngi leen de. mais ani naari ani naari ani fi dégg naa ngi fi ñu ngi fi door baaf ah. waaw alhamdulilah ñu door baaf moom. ah ñu door baaf mooy sangu ah. si dañ koy. ok loolu lañ foofu grand mu ngi neex. waaw alhamdulilah muy naan moom naka waa Sénégal yi. yow da nga bàyyi mbokk Sénégal sénégalais nga. waaw sénégalais laa moom wax dëgg yàlla damaa bàyyi boobu. non non ça fait combien de temps nga nekk Libye. man maa ngi trois ans Libye. ba léegi ñëwagoo Sénégal. non ba léegi pas encore. léegi ba nga gisee émission bu mel nii Hello Ado gis PNJ ça t'a fait quoi. non ça moom wax dëgg yàlla moom sama xale yi dafa ñibbi ji réew mi quoi. ok dafa dellu si Sénégal. <laughs> ah oui dama de sama xel moom dafa dellu Sénégal wax dëgg fa mais yaa ngi am yaakaar di nga ñëwaat bientôt seet si mbokk yi. non incha allah incha allah maa ngi koy foofu dañ la fa may benn naar ngay sëy moom wala. <laughs> non dëgg yàlla aw ma soxna quoi aw ma soxna fii quoi Sénégal laa amee soxna. Ah, ok kon sénégalais nga am. ah mais noo koy dundee a boobu la fekk sa jabar nekk fii Sénégal yow ngay daan sa doole foofu nooy dundee loolu quoi. <laughs> bu ree bu <laughs> sa waaj dund bu métti laa koy dundee quoi parce que xam nga rek naar yi moom dañoo tiit quoi wax dëgg fa yàlla. ah bon. dund bu métti laa koy dundee parce que instant seddaay bi moom muy loolu instant yii nii ci lii bi instant yii. ah seddaay bi amul benn amul benn naar bu lay faral di wétali si seddaay bi foofu. <laughs> ii naar yi sama waaj naar yi dañoo tiit dañoo ratit. <laughs> mais dinañ lay invité ay ceeb bu weex ay ceeb bu jën. <laughs> naar ñoom xamuñu ceeb quoi naa moom ñun sénégalais yi kese ñooy toogal suñu bopp quoi naar moom xamul ceeb. Ah, mais foofu lan mooy seen plat préféré ñoom libi ñoom li moom daanaka yàpp wala macaroni wala spaghetti. ok ok ok mais am na ay ah, quelques am na ay quelques sénégalais yi nga xaritool foofu. non bëri na kay bëri wax dëgg fa yàlla. bëri na. Ah, est pare ngeen pour accueillir PNJ Libi ñu defal leen benn soirée bu neex foofu. non loolu rek la ñaan yàlla. ah bon ñu ñëw foofu tàngal fa. Ah. ah oui sax rek la ñu tàngal Libya quoi ñu wan leen moom Afrique <laughs> la nga ne. Ibrahima Balde ma. Ibrahima xam nga nu ñuy def. waaw ah. léegi da ngay envoyé message sama jumeau bi nga ne ko c'est Ibrahima Balde depuis Libye. d'accord. baax baax amul benn problème incha allah. ok ñoo far grand. léegi Il est parti Il est parti, dem na dem na dem na. ok alors bi alors léegi euh, gars yi xam ngeen 10 minutes moo des ci émission bi léegi dañuy teg benn clip rek juste suñu tegee clip bi après ñu ñëw tàggatoo ak yéen ba vendredi mais clip bi nag benn gel la benn xale bu jigéen la. xoolal gars yi amagul sax 18 ans xale bu ndaw la mais mu ngi cartonné dañuy seetaan clipam lañ ñëwaat ñu tëj émission bi let's go. a I like you naturally. Be the first everything, something I did do. You cut the heaven where we are living. It's all kind of no personal journey that I want peace in you, peace and love. diva qu'on ne présente plus bientôt. Elle sera là, bien sûr, dans Hello Ado. On vous rappelle que ce vendredi, il sera l'invité de PNJ. Il s'appelle Nidoff. Il est en train de préparer euh, son concert. Alors, sànq dama sàcc sama portable jumeau ma gis message yu Carlo di Baye Fall mu ne ma pii dama raté son bi est-ce que mën nga ma si may benn 30 secondes ji Carlo di mon message. nee na ne si ñaaña la nekkoon. Ah? ñaaña bàyyil Carlou mu noppalu ko ah. yow tamit ji may ñu tuuti Carlou di. ñu ñu mayaat ko ko ah. merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup. Merci beaucoup monsieur Di le Baye Fall Carlou D avant que muy dem week-end bi il va partir en voyage vendredi bien sûr il a une grande soirée le Baye Fall Carlou D encore une fois respect total à lui en train de regarder les PNJ alors sur ce Pape Fall Pape Fall kii nag mooy caméraman boo xamante ne mooy tax ngeen di sañse ah, donc mu commencer si suuf xoolal dàll yi xoolal daalu pii ak daalu ji. Papal dama bëgg nga zumal ma daalu pii ak daalu ji. képp kuy sénégalais képp kuy sénégalais soo nekkee xale bu góor nga bëgg ay daalu yu nice c'est l'année scolaire aussi pour les élèves. Hmm. alors jëlal sa portable nga woo Ousmane Ousmane bu Colobane daalu yu nice yi moom moo ko coaché si 77 564 61 41 je répète 564 61 41 mooy Ousmane. alors ki nga xamante ne moo solal PNG solal bi waa mooy jiin bi yëre bi ak casquette bi waa tout pour vous donc képp ki nga xamante ne bëgg nga sañse muy góor muy jigéen woyal waa tout pour vous si 77 326 09 11 326 09 11 képp ki nga xamante ne nag bëgg nga am ay lettres yu nice xale yu jigéen yi école ubbi na su ngeen bëggee defar seen bopp dem leen salon Dia. Almadi Almadi fii la à côté de TFM si 77. 038 36 74 77 038 36 74 voilà donc les trois personnes yi nga xamante ne ñoo toppatoo PNG. la Louise connectée euh, depuis OMVS euh, Maguette euh, donc ñu ngi leen di bëggee Passane donc mention spéciale à vous donc le aussi un jeune monsieur qui se nomme Ousmane connecté man ak sama ñooy ànd liirandoo texto yi dinañ leen tontu ah, kontaan nañ si texto yi si appel yi jantal bu doon. ok di remercier Pape Fall euh, le caméraman euh, di remercier waa régie Apulaay mention spéciale à vous tous. Hollywood Hollywood peace and love rendez-vous vendredi à une heure du matin c'était PNJ. bye bye. I ain't worried about nothing. I am wearing a nada. I'm sitting pretty. I ain't worried about nothing. I am wearing a nada. I'm sitting pretty, impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick up to picture. I'ma get you fired. I know you're always on. worry about nothing I am wearing a nada I'm sitting pretty impatient